propos de Samuel loolu Nekul. parce que ministère du commerce nous dañuy encadrer rek signature au niveau du compte ferrailleur. nous avons fait yor les déclarations donc ce que je amul yanuwul Mana, amul fenn aujourd'hui je pense que les informations comme Samuel waxee le compte bancaire il y a que les ferrailleurs ont ñoo

dafa am ay jafe-jafe yoo xamante ne nii dañu ko tàmbali yëpp ci suñu secteur ñun ferrailler xañ ne dëgg la jamono fi mu toll nii gis nañ ne bari na ay jafe-jafe ngir fi àdduna bi toll waaye tamit euh, dañoo seetlu ne réew mi fuñ ci mën di toll rek dañuy gis ne maanaam doomi ndawi réew mi dañ leen di ginnaawal chaque jour ci li nga xamante ne nii mooy économie réew mi te ñun suñu secteur yàlla dimbali nañu ba am nañ ci pexe yu yaatoo yaatu waaye ba léegi ñi ngi am jafe-jafe ngir mën a jëmmal suñu pexe yooyu gis nañ ne nag jamono ji ñu toll nii suñu état réew jël na ay décret pour arrêter exportation ferraille ngir ay industrie yu nekk ci dëkk bi waaye gis nañ ne loolu xañ ne yéene bi ci état bi amoon muy naka la def ba taxawal ay industrie ti réew mi ngir mu mën a jariñ Sénégal ngir matière première bi bañ te tee génn Sénégal xañ na état bi moom yéene boobu la ci amoon waaye gis nañ ne ñi nga xamante ne nii ñooy privé yi nga xam ne ñoom ñoom moom industrie yooyu gis nañ ne ñoom amewuñu taxawaay boobu seetlu nañ ci ñoom ne seen bopp leen ñor te it te li ëpp ci ñuy def loolu ay étranger lañ ñu gis nañ ne ñaari industrie yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal di yëngutu ci wàllum ferraille attanuñu poids ferraille bi nekk Sénégal ba tax na ñi ngi indi jafe-jafe ferrailleurs yi nga xamante ni nii ñoom ñoo nekk Sénégal te bu ñu waxee ne lu tolloog cent mille personnes bu nekk ci benn secteur di ci dundu loolu état bi warul bàyyi ay ñaari industrie kese nga xamante ne nii ay privé lañ kenn ki benn chinois la kenn ki benn naar ñu mel ni ñoom daal ñoo bëgg a takk ferrailleurs yi euh, buum di leen diri mel ni ku leen jëmee ci seen four yooyu ngir bëgg leen a togg comme ferrailleur kon léegi ñi ngi woo président de la république Macky Sall di ko xamal ne ko bëggoon nañ tamit mu dimbali nu ci jafe-jafe yi ñu am nii ñun ferrailleurs yi ba fexe ñun nan la ñuy wutale pexe bañ mën a tijjiwaat exportation bi ngir mën a tamit yeggali suñu liggéey ndaxte tamit euh, yun suñu borom dimbali nañu suñu liggéey état bi ñu benn financement jàppalewuñu ci benn côté xañ ne ñun ñooy def suñuy pexe ak di wut suñuy partenaire ngir bëgg a def suñu liggéey léegi nag ki nga xamante ne nii moomul sa produit bu bëggee taxaw ne la far force produit bi nekk ci sa loxo mën nga koy jaay te làqatu ci ginnaaw parce que gis nañ ne am na ay lobby yu mag yoo xam ne ñu ngi ci biir état bi maanaam industrie yi làqatu ci seen ginnaaw di jëflante ak ferrailleurs yi ay jëf ju ñaaw joo xamante ni nii bëgg nañu tamit Macky Sall mu bàyyiwaat xel ci loolu xañ na nag boo gisee ñu génn nii di ci wax xañ na gis nañ ne réew mi jamono ji bari na ay yëngu-yëngu bari na ay coow ñun nag ay ndaw lañ yàlla dimbali nañu ba xajuñu ci coow ndaxte nit mënta yor weñ di coow ndaxte lii gaañ nit ci weñ lay jógee kon mënuñoo coow léegi nag li ñu bëggoon président de la république tamit dimbali nu ci muy fexe ba dox suñu diggante ak industrie yi ba nga xamante ne dinañu mën a dellowaat ñun suñu liggéey ba ñu mën a téyaat suñu feeraay xool naka lañ koy jëflantee parce que jënd ak jaay man laa xamul li nga yor maa koy jënd far force te ni ma neex laa koy jëndee loolu man damaa xamul fan la xew ci àdduna te it loolu la industrie yi dox suñu diggante ak li ngeen yor ñun ñoo koy jënd far force te li ñu neex lañ koy jëndee jamono jii ñu toll nii di wax ak yéen soo demee ci industrie yi suñu camion yi yëpp ña nga fa taxaw mënuñu wàcce matériel bi te loolu lépp système bi ñoom ñoo ko tey parce que ñoo paanal seeni machine ngir bëgguñu gàllankoor ci suñu biir liggéey léegi nag ñoo ngi woo président de la république bëgguñu coow bëgguñu it lenn loo xamante ni ni moo ñuy tardel ci suñu àdduna nañ ñu delloo suñu liggéey ñu bàyyi ñu ak responsabilité bi xam nañ lu ci nekk nan lañ ko mën a gérer loolu daal moo waraloon daje bi tey ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen waa xam nga fer bi soo gisee mu seer lenn dong moo ko waral muy matière primaire bi koy defar moo seer ñun nag fer dafa seer ba pare ñun ñu bëgg wàcc suñu matière primaire bi nga xamante ne nii moom mooy defar fer loolu mooy li nga xamante ne nii moom mooy li ñu gën a jaaxal ñoom dañoo yéegal prix ba pare bëgg wàcce prix ferraille te fer ferraille dong lañ koy toggee parce que ferraille mooy li nga xamante ne nii moom mooy defar fer te it gis nañ ne Sénégal mënuñu tëj maanaam. importation fer fer day ñëw Sénégal te li ñu jaaxal mooy lan moo tax ñuy tëj exportation ferraille maanaam tëj ñun suñu matériel ne du génn suñu matière ba pare tëj ji matière ñeneen mu mel ni daal dañu nekk ci ñaari Sénégal kii nangul nañ ko lii kii nangul nañ ko lii léegi jaay doole googu maanaam ji industrie yi di def loolu lañ bëgg laaj président de la république tamit maanaam ci lan la tege waa xañ na lépp loo xamante ni nii war na ci suñu diggante ñun suñu suñu côté def nañ ko waaye industrie yi moom ñi ko yor dañoo nekkut ay nit ñu respecté ferrailleur ay nit ñu ñàkk respect lañ loolu moom xam naa ne nekk na ci ñoom waxuñu ko it c'est parce que nii jaxasoo nañoo ak ñoom wax nañoo ak ñoom ci li war a wax ak ñoom mais ay nit lañ yoo xamante ni ni respecté wuñu ferrailleur waa njëgu feer fi mu toll nii mi ngi nekk ci diggante 190 175 moom nag mi ngi ne da koy yóbbu cent 150 loolu lépp mu nekkaat yeneen problème te ñun mën nañoo jël fer bi jaay ko exportateur yi lu ëpp prix bi nga xamante ne nii moom la ko industrie bi jënde waaw ñun bu ñu sañoon kilo ferraille du génn Sénégal bu ñu sañoon lépp li nekk matière primaire Sénégal fii lay des mais dañu am jafe-jafe ci ñi nga xamante ni nii ñoom ñoom moomee industrie parce que lu ñu bëgg-bëgg loolu tamit ñun ñi nga xamante ni nii ñun ñoo téye matière primaire boobu bu fekkee ne ñoom ñu yore industrie yi amuñu benn respect suñu diggante mais bu fekkee ne étranger bi daf lay gënal sa doomu réew nooy def bu fekkee ne ñu ne intérêt bi ñu ngi ko gën a am ci ki nga xamante ne nii moo jóge ci bi biti réew ñëw ci réew mi ki nekk ci biir réew bi léegi naka la ñuy def buñ sañoon kay kilo ferraille du génn Sénégal mais ñi moom industrie yi ay étranger lañ te amuñu benn respect ci sénégalais yi te gisuñu tamit maanaam benn njariñ boo xamante ne industrie yi amal nañ ko Sénégal kon léegi maanaam jàppali seen industrie yooyu ñëw ñuy gën a am doole doomi réew mi di gën a torox loolu maanaam ban njëriñ la am